Euh, macha allah yaakaar naa ne duñ def lu duggaat ci benn angle euh, maman ku la xam-xamee la Wally Seck gis nga lu ko dalal temps yi mu defoon accident euh, nga nekk yaayam. Mhm. bi nga ko yëgee nax nga ko dundee ak lan nga ñu mën a wax tamit ci loolu. waa mu nekk lu metti trop parce que Wally mooy premier chanteur bu Sénégal fii. Wally waaw. Hmm. premier woykat. Hmm. boo xam ne day maye ay oto. day dimbale handicapé yi waale di faj ñi feebar mhm. am na ñu ko fi njëkk a woy fuuf te maanaam social bi muy def nii ñooñu defuñu ko waale day gis handicapé buy yuut mu tëye ko ci ñaari loxoom te am na ñoo xam ne bu doon ñooñu duñ ko laal ndax dañ koy séexlu waali séexluwul mhm. waali bewul waali amul garde corps yoo xam ne dañuy taxaw ci wetam muy woy dina la téye làmb poosam may la mhm. allahu akbar kooku kenn la kon su ma déggee ñu ne dem na ñu woo ko mu dem tëggi mhm. wàññee ko ab oto daw mhm. ba dal ci koom te nga jur doom bëgg nit ki wallaahi laazim billaahi mënuluñ ko dara mais ñi naan ay pexe la loolu ndax nga ko gisee ñu naan dañ ko ay pexe lépp mën naa nekk ndax le le la le le le le prophète de la musique sénégalaise boo bëggee dégg le prophète de la musique sénégalaise mm-hmm. billahi wallahi mm-hmm. watallahi darëgee Seydina Mohamed c'est Wally Seck c'est le prophète de la musique sénégalaise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 kon danga bëgg a wax Wally Seck. an an fusikum mooy ñi ki ki yàlla yónni muy bégal nit ñi an fusi mooy mooy bànneexu ba kan. Mhm. Aziz ji xol bi rafet na laab na. Mhm. te lu mu am da koy bokk ak nit. Wally dañ ko yónni gis nga man. Mhm. sant naa yàlla julli ki Seydina Mohamed sama kër gi lebuma ci dara maa ko liggéey maa ko ñaq Wally mayuma kër. tabaski daaw damaa jékki-jékki. Hmm. Aziz daal di ñëw ñu woo ma ne ma Wally Seck mi ngi lay may xar barakati laa ilaha illallah ñaanu ma ko woon. Hmm. daf maa may noonu xar. ren. Hmm. ma jékki-jékki ñu woo ma ne ma ñu ngi lay indil beneen xar. pourtant mënoon naa xaar ba ma ñaan ko te waaye dafa xam li ko war te du man dong la may. ban woykat nga fi gis mu teg ay xaram. ban woykat nga fa nga fa gis mu teg ay xaram dem di jox par nit nee ma kii la tuddal ma tur amut ban woykat nga fi gis muy yëkkati ay oto xam ne Selbé Ndom mii soxla la oto walla Bijou mii soxla la oto mu yëkkati di ko jox mais Wally sekk la social yi muy def ak ni muy dimbali ay nit du jànn kenn du bëmax kenn jaayul kenn réewande di tekki montre jamaa di ko jox andi handicapé ban woykat nga ko fi gisee man da déw ma buntu kër Wally Seck wax dëgg yàlla hmm. billaahi wallahi wa xam naa nag këram bu may dem yoof di jën di jën dinaa romb këram nii veere bëri torop tubaarikàlla yàlla na yàlla na bari hmm. waaye mooy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ba yàlla di fal yonent bi sallallahu alayhi wa booba ñaata at la am mën ngaa ndaw nii ci nit ñi waaye magee fa yàlla kilifa yàlla moo koy def yàlla du xaar ba nga am bee jaamu dog laa def kilifa. mais maman wax nga koy jéggiwaale rek ba mbëkkwaale loolu nax nga ko gisee. ñooñu dañoo iñaan ñu ko dara. pexe la wala. ah xam nga ne moom pexe la moom lan la def ñooñu waali xuloowul xeexul am na ñoo xam ne tey buñ sañoon waali du way waaye kii yàlla sampal boppam. Mm-hmm. ki yàlla sampal boppam bëggal ko boppam def ci moom xol boo xam ne macha allah. Mm-hmm. ku mu gis gaaw naa jooy. xol bi rafet na mi ngi dimbali nit ñi bu sañoon kenn du xiif billaahi mënoon naa jënd xaram mu mag xaru 2 millions dugal ko ci ci biir këram mhm. te kon it kenn du ko sikk ndax moo liggéey xaalisam mhm. waaye ñaata xar la la Wally Seck du joxe ñii dañuy jaar nii ñoom xar mbay ma jaaga ñëpp lay may mhm. te bu ko neexoon danaan ah ñii de ay woykat yoo xam ne màggat nañ mais moromam yi sax da leen dimbale kon billaahi wallahi watallaahi daraje Seydina Muhammadin mhm. duñ ko munal dara. Mhm. Euh, alors gis nañ ne avant accident bi amoon na ay maara yi génnoon ne Wally Seck euh, ñu ngi koy euh, fexeel ci wàllu oto dafa mel tamit loolu noonu tamit dafa confirmé. ma ne ko gisee ma ne waaw hmm. gis nga ñi wax naan Wally Seck ku mu may biyee nga dem màkk baaxut. Hmm. ñoo mën a kàcc yéen a mën a kàcc. ñii waxuñu dëgg ndax gis nga barakati laa ilaaha illallaah Seydi Mouhamed Moustapha Sy daf maa jox xar daaw mhm. Waly Seck jox ma xar daaw ma jël xaru Seydi Mouhamed Moustapha Sy mhm. koy tabaskee daaw mhm. ma xaru Seydi Mouhamed Moustapha Sy day bii mu bii mu ma jox laadum la dama ko fiy teg ndax dama am xar mu jigéen xaru Waly da laa def te gis nga soow ma ma woyal su ma paree dinaa la woon image bi la tax yàlla daganal tabaski. Hmm. barkati laa ilaha illallah ku tabaski ren sa tabaski dagan na. ren ji barakati laa ilaha ñëpp am tabaski. xoolal. Hmm. nañu bàyyi doomu jàmbur. waali doomu bànneex la. man hmm. waali yóbbuwuma màkka. 2013 laa dem màkka. demaat màkka 2014. mais li muy def fii ci Sénégal. mosu fee am. te ma ndax dina fi amaat sax ndax xol ba laab na billaahi dugguma kër waali musuma woo waali sama téléphone ba jot ko assisté tànk moom moo ñëw fii indi xar mhm. jox ma waali ma nuyu ko sant ko gërëm ko muy ñaari yoon mhm. xanaa euh, kii jaay jasineer xaw ma nan daabo mhm. de woo na waali sekk ma wax ak moom bi mu ne koo kan la ma na ko yaay laqad jaakum rasulun le prophète de la musique eh sama yaay Selbé hmm. Wally dafa dal su nekkuloon nag ci yoon dama koy xas ndax man kii laa gëm ki wàcce kaamil bii hmm. mooy moo nekk sama fii moom laay tëdde hmm. moom laay yeewoo bu ma tëddee sax damay waxtaan ak sama borom kon Wally du ma dugal àjjana ndax moomul àjjana amul àjjana Mhm. waaye li fi nekk lañ wax nañu bàyyi doomu jàmbur sëriñ soosu di kàcc yëpp bu leen bu leen wàllu ubbi loon ñuy dem di ko fréquenté ñu waxante dëgg kenn ku ne mhm. xamoo kuy dem safara mhm. yow ki sa bopp sax xamoo kañ la yàlla di jël ba nga mën a xam ni safara jëm kenn jógewul àllaaxira nañ waxante dëgg amul kenn ku jóge àllaaxira ba ñëw ne kii lañu xisaab eh nañu bàyyi seen conneries yi nañ bàyyi li ñuy def baaxul mm-hmm. waali waali yàlla la waali waali yonent bi la waali waali cheikh ahmadou bamba mii xaadimu rasul la waali waali cheikh ibra la mm-hmm. ku yàlla bëgg ku yàlla bëgg mm-hmm. gis nga dañoo yaakaar ne wàll yi ci lan la xol la de xolay nangu de xolay baax maa ngi dégg benn sëriñ mu ne dafa woo taalibeem ne ko reyal ma xar mi indil ma la ci gën a baax. Mm-hmm. mu dem yóbbu xol ba. mu ne ko reyal tam beneen xar bi indil ma la ci mm-hmm. gën a bon mu dem indi xol ba. Mm-hmm. xol rek la yàlla di say d'accord kenn demul safara. ba xam la fa ne. munoo nekk fii nag. naan kii bu dee def nangam te booba boo demee yaa ngi bokk sab jeeg boo xam ne takkoo ko <laughs> non c'est vrai xam naa li may wax bu baax a baax a baax a baax. faw ñu moytu. bu ñu sunu moroomu doomu aadama tardeel mukk. Mhm. yàlla loo ko def mën na laa jéggal waaye sa moroom sa digganteeg sa moroom mhm. yoonu yàlla nekku ci. dañ bàyyi loolu nañ bàyyi waali ci mhm. jàmmam. mën nañ koo xam jàmm sax ndax ma ngay xool yaa ngi féex rek. <laughs> Selbé mu bañ awma lu ma ko jàppale. damaa def vidéo di ko feccal. ko ne maman euh, Faramaren nga ma ci ci nga bokk. ba ma nekkee Faramaren dafa yàgg. Hmm. Faramaren laa nëbbuma ma ko. <laughs> Faramaren pire. Hmm. d'accord ragal péete day xàññi wërsëg. musique mhm. gu Wally laa sentir bay taxaw di ko fecc dugal ko YouTube. da ngay waaw waaw fecc naa ko fi de. fecc naa ko de boo duggee YouTube. Hmm. wala Selbé Ndom TV. barki Seydina Mouhamed loolu rek laa ko mën a sotalee mënuma ko sotal leneen. sama xol bi tàng na nañ ko mbëkk metti na ma aw ma ci pexe lu dul taal misigam fecca fecc fecc fecc ba wëndeelu futti bopp ba yëngal rasa yi naa leen mënul leen ko dara da ngeen iñaan seetaan leen vidéo yi mm. maa tey maa bëgg waali te billahi wallahi wa tallahi mm-hmm. kenn du ko mënal dara nañ bàyyi doomu jàmbur ndax li muy def mm-hmm. billahi bu def toon lu baax oto ba dana ko mbëkk ba mu nooy waaye ciy sekk fi nga teg tànk bi avance rek <laughs> barke Seydina Mohamed du arrière mukk hmm. billaahi bu dee màkka la yóbbu man yóbbu naa sama bopp màkka deux fois hmm. makka 2013 ma bu mabruur man laa am aj gu nangu gis nga leeru yàlla gi hmm. mooy jant bi làmp yàlla mooy jant bii